ñu ngi leen di fay ba pare ñu ngi fay itam ñoo xam ne dañoo dee ay décédé. ñooñu est-ce que nekkul seen famille lañ koy jox. seen famille ñan. bu doon famille bi kay duñ leen déclarer décédé. <laughs> aha c'est ça. voilà amaat nga amaat nga léegi ñaata point moom. léegi mooy quatre. def ko mooy deux rek honorable. non non nañ dem ba ci kanam parce que bas gay parce que yàlla nag sincèrement parlant da nga niróo moom. Euh, lii quotidien ñëw ñun ci protocole Cap Manuel ba xotteeku na ah après le président Diomaye Mimi Touré s'en prend à Macky après la lune de miel entre Macky Sonko et Diomaye c'est la lune de miel kon dañ doon lune de miel dañ fay jotoon a jubóo <laughs> loolu de kon daf maa rëcc moo ah, président bi dakkal na pacte la ñu signé woon ak Macky Sall ca conférence de presse ba et voilà que Mimi Touré Bello entre dans la danse en accusant l'ex-président Macky Sall d'ingérence Macky daa bàyyi ba pare di ruube loxoom jugul ci réew mi te loxoom jugul ci luy yëgal réew mi Macky Sall loxoom jugul ci luy xajamal réew mi mi may ko wax de mi mi moo laal dil bi. moo laal dil bi. moo laal dil wa voilà mi ngi nii wax na tamit Macron lu leer ne ko Macky Sall. ne peut pas continuer à travailler pour vous et diriger un parti d'opposition loolooy dëgg ma kii dafa war a bàyyi affaire yow loolu teree bàyyi ma kii du bàyyi. day gêné Maroc ga mu nekk sax parce que ñun avertiroon nañ ko parce que mënoo nekk ci dëkku jàmm ba pare di dugalaat sa loxo ci réew mi nga xam te ne fa nga jóge affaire diplomatie ak yooyu. ma kii mii waa réewam dañ koo mënal dara ba ba ba ba ñeneen di ko mën a dara <laughs> ma kii mii. dégg le mandat yéen kaay ñëw ci cadre gëm sa bopp yi de arrêté nañu sawmati nañ nguur gi dégg le mandat loi d'amnistie bi scandale Covid euh, surtout mbuur mbuur kat ba daal boo bëggee dégg dëgg. bàyyiwul dara ah démb bàyyiwul dara. Pedre Ndiaye yaa ma xool lu mu bind. ah lu attaqué nguur gi cadre gëm sa bopp yi bett moo woon. Macky Sall est-il envoyé spécial de Macron ou chef de l'APR mi mais samp laaj bi de te bu continuer nag bu continuer mën nañoo jàpp ne moom France mii loxoom mi ngi koy dugal ci bagaasu réew mi ci loo xam ne yëguñ tinul immixtion lay def Mimi Touré nag mu ngi sàkku ci Macky Sall mi mu dakkal salaire bi ñu fiy jot xoolal lii ma doon wax nii te xaw ma woon ni Peter Ndiaye bind nga ko Peter Ndiaye deux points de plus naroon naa la fiy génnee dama naa la fi bàyyi. kon di nga fi bàyyi finalement. góorgóorlu nga tey mi ngi góorgóorlu nag vraiment mi ngi góorgóorlu bu baax voilà voilà dégg nee na mais Macky li ñu koy fay weeru dee en tant que statut ancien chef de l'État. Mhm. mais na ko ba te dem jëli la muy am ca Macron loolu mooy dëgg voilà mi ngi ngi ñëw lépp mooy ñëw ak ñun ci mouvement Bambey creuser l'espoir lii lan la yàlla ñu dem. Diomaye moo njaboot. le regard Mimi étayait le feu de l'opposition. ma du leen arrosé. waaw dañ ko taay dañ doon taal. taxawaayu sapeur la taxawee woon. non sébb sébb gi commencé naa nii ak nii Mimi ñoo jël ndoxam. xëpp ca kaw la opposition bi liggéeyoon mbir ma fay. ñu dem révélation ñëw ak ñun ci. cent jours de Diomaye au pouvoir la loi sur les lanceurs d'alerte traîne dëgg la de ba léegi de loi bi daa war a gaaw de accusé da yorin gu bon ñu ànd ak Lat Diop ña ngay critiquer sévèrement Abdourahmane Diouf ndax li mu wax jarul critiquer dañu indi ay leeral rek réew mi quotidien ñëw c'est simple jarul xuloo jarul xeex na leer rek dañ laa jiiñ demal teggitu ma indi ay hmm. preuve yi wane ne lañ la jiiñ du loolu. wallaay ndeysaan coow li orab comme ni nii te ci bale bi lay làqatu su bëggee defee nii ci bale bi lay làqatu ciibatul ñu xool. réew mi quotidien ñëw ñun ci assemblée nationale diplomatie nouvelle mission de Macky Mimi tiir waaw Mimi waa léegi Mimi bu tiiree ci Macky Macky itam tiiree ci Mimi nu muy demee. ah tiirante bi day fexe leen rek bu bu ñu deret laal. après société civile bi ñëw rek la. eh xeexu milliardaire borom cent franc yi dañu fay def. yoonu cent franc ndeer nekk ñaar ñii dañ maa dépassé. ñu xamante lañ la nag. kan ñoom ñaar yow déggoo ma xalaat. Mm-hmm. miinante nañu de. ay gone lañ de ay gone lañ de ah waaye li ñu xam xaw naa bari de. mimi xam na mag. dama ne. xam na njaboot déclaration Macky mimee ko doon defar. tata mimee ko bind. ku bëgg a defar déclaration de patrimoine te am ay jafe-jafe ci niñ koy libalee demal ci Adja tata. mimi mimi moom Aminta mu defaral la ko laaj bii muy laaj Mansour Faye naan ko defal déclaration de patrimoine yaag sa njaboot sàmm ko du njaay ginaar ki nenam lim ci xam a bari. eh waay. honorable bale bi ay. ah voilà waxoon ci kaw waxoon ci kaw. déedéet amoo bale boo laaxatu. na la tay la waxoon ci kaw. doo ma tayale bañ. mimi li mu xam a bari kii. mu nekkoon premier ministre ministre de la justice. moo tax na xam naa aduna tam doy na war. mooy bàmmeelu bi moo tax xam naa ne ba mu ne day wax. ñoom ñëpp kenn na la wax xam nga la koy wax léegi li mu mais tamit politique bi tamit tamit kéeti. jox na sa xaritu tey mën na nekk sa noonu. ah non ba mu nekkee ministre de la justice CREI. Mhm. bokk naa ci njëkk def ak moom sant yàlla émission nii pour toog nii nii nii laaj ma ko ma fa yóbbu Abdou Mbow. Abdou Mbow ma ne ko yow affaire créé bii moom sawaay bees bees mais ministre la justice bi gaayen sawaay du ko liggéenti femme bii nii gaayen sawaay femme bi dëgër na de xaw ma am Aminata Touré ko ñun daal ci lii la ñu ne ci lii lañ ne ba mu ne waa d'accord ñëw leen ay vingt fekk ma vidé dossier yëpp bu ko defee ba dara desul lu dul wàcc après vous venez. kenn waaw ma xiin xiini ba ñu ut gendarme yi ubbee buntu ba léegi ba ma dugg jàkkaarloo moom pour la première fois ma gis nii mimi. mimi ngi ñëw. mu ne ma wey mon neveu comment vas-tu mu ne kaay ça va bien. ma ñëw. nii kaay nii. kii wax wax wala daa am keneen koy wax. ma ne ñaf allo. oui ah waaw sëñ bi na def waay ça va oui madame premier ministre laa soxla ah mais moo ne fa man la yow tamit nag baat bi kii rek ma ne ko eh waa mère da nga defaay <laughs> ful la bëri ay nit ñi. Mm-hmm. bi mu ne day def conférence de presse gi souvent affaire bi xam feebar nañ. Mm-hmm. xamoon naa ne dana leen rey. source a ñëw ak nga nii bi ñu doon def Abdou Mbow Ayib Daffé ak Lamine Thiam ñetti président groupe parlementaire yi waxtaan ngir lijjanti. mbirum règlement intérieur ba waaye waa Bennoo dañ caa bëggoon a ñambaas dara. Hmm. mooy fa article bay waxee ne bu assemblée amee ñaari at mën nañ koo tas. dégg nga loolu lañ ca ñambaas ñeneen ñi ne leen non non soo ay yooyu yeggaguñ fa dégg loolu cent milliards dégg nga ancien maire Kër Massar Moustapha Mbengue à propos des sept cent milliards investis dans la lutte contre. non non du sañ na nekk ci inondation yi non non nee na ñoom bénéficié wu nañ ko. ana résultat moom laa lay laaj nii. moom laa lay laaj de. dégg nga loolu mi ngi nii composition du conseil supérieur de la magistrature et la question des fonds politiques mi mi nag li mu wax ci conseil supérieur de la magistrature dafa leer rek eh wuy ma nee na njariñ la bu ko neexee mu toog waaye li mënul d'accord nag mooy. Mhm. ci choix wu juge yi ak procureur yi. Mm-hmm. ah pour mu bàyyi leen seenu indépendance waaye toog fa moom njariñ la. Mm-hmm. conseil supérieur de la magistrature. Mm-hmm. waaye comme li fi xewoon di tànn procureur di tànn ay ay ay juge waaw mais sa waay nag nañu waxante dëgg nag. koo amal fu ko neex ngay xool. Ah, bu fekkante ne premier ministre bi ci sa ay waaw lay dox. Ah. non moom mën na mën na wax procureur ne ko defal lii mu def lii. Ah, waaw waaw waaw. Mm-hmm. bu ma booleeg Sagna Sagna merci beaucoup. foncier fonds commun 450 milliards euro nomination 21 conseil primature cadre gëm sa bopp de tiire nañu ci kaw nguurug Serigne Ngundu. mooy lan ci àddina ay man daaw de càmm yi. Mm-hmm. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci. double fonction Macky Sall ba président APR envoyé spécial 4P dissolution assemblée nationale 1000 milliards Covid Mimi fait peur de tout boo xam Mimi ngi ñëw Mimi ngi ñëw. encore Mimi ngi ñëw. mii mii ngi ñëw encore. mi mi ngi ñëw dafa dafa dafa dafa tawaat. mën naa la encore. Kouthia ñi ngi ñi nga xam ne ni dafa dafa xaw a tawaat ñu ngi koy ñaanal yàlla fëgg bopp bi moom it temps yëpp gisatuñu ko. yal na yàlla mais même même kii même même TFM dégg RFM ñu ne dafa am ku fa gaañu. waaw benn waaw. Passepartout. waaw wax liir naa ko man koo xaw ma. Mm-hmm. yal na yàlla yokk yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana amiin yaa rabbi yal na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a ah mais man Kouthia gis naa benn photo YouTube boo xam ne léegi Amina benn phénomène bu bees moo xew. dëgg dañuy xëy jël photo Ahmed Aïdara. dugal ko ci ne dee na tàggee ko wala ñu naan feebar na te dara jotu ko. Mm-hmm. lii la ñu def Pape Cheikh Diallo wallaahi ñëpp jékki ni ñu doon waxee feebaru Pape Cheikh Diallo ba ko képp ku ko xam man de dama ko ragaloon woo nga toog ba gis ko ci mariage gone gi lee doomu Viviane bi rek. doy na waar de. Pape Cheikh mel ni la mais jël borom bët yooyu di jooy ñaar def ko. noonu la de. ci doomu aadama barki démb gis naa ko bind ne Mamadou Ibra Kane finalement. def ay jooy. def trois points de suspension def jooy. mais nga cliquer ndekete affaire bi benn audio la. waaw ndekete est-ce la xamal lan la. Hmm. Mamadou Ibra bi muy wax ne Macky sàll na ñëw indi ay gindi ak tontu ci lii Diomaye wax ci fond politique yi. Hmm. waaw mais bëgg ay vues jaar jaar. dëgg dëgg. bëgg ay vues est-ce que jar na nga jël papaay jàmbur. a saar mii defoon nañ ko fi tàggee ka. réseaux sociaux dañ ko war a régulariser waat bu baax a baax baax. Hmm, def ci ay mbir yoo xamante ne wala boo defalee ni di yéen ñu mën la traquer parce tamit dafa métti yow parce que kooku ñu koy tuumaal mais am na ay njaboot nañuy fàtte ne ñi nga xamante ne ñoo ñu siiw ñi wala ay star wala dara mais du ñu extraterrestre ay nit lañ dañu am lu leen neex am lu leen naqari il faut que également yow loo xam ne bu ñu la ko waxaloon. du la du la du la